Jeff aux populations de Séjour. on a fait une belle caravane Manglen di remercier di len sante, di len gërëm di nuyu suñu investi di len féliciter ci un engagement di len féliciter ci mobilisation bi di encourager

c'est aussi ma sœur Nyomnyar ñaar ba nous la coalition de l'espoir Nous ñëw la coalition qui prend l'unité Nous ñëw la coalition qui prend la paix Sénégal nous ay division Sénégal nous ñu soxla li ci gën a jàmp loolu moo tax loolu moo tax fu ma mënti dem damay woo doomu Sénégal yëpp ak nu ñu mënti mel fu ñu mënti jóge ndax ñun ñëpp bu ñu àndee war nañu mën a defar réew mi ku xool xale yi war nga leen a yërëm ku xool jigéen ñi war nga leen yërëm dinaa wax nag premier ministre bi liy defar Kolda ak liy defar Sédhiou maa ngi ko bàyyi ci tiroiram xam na ñaata la xam na lan la xam na nan lañ koy defee xam na fu ñuy utee xaalis bi maintenant xaw ndax liir na ko wala liiru ko def nañ fi conseil présidentiel fii def nañu Kolda conseil présidentiel ci ñetti at yi li nga xam ni réew mi soxla na ko def nañ ko foofu xayma nañ ko te ñi nga xam ne ñoom ñoo ko bind moy ñi leen defal vision 2050. kon étude bobu du étude politique pour li défar réew mi la li défar réew mi nañu and jëm ci taxaw parce que nit ñi soxla nañ ko monde nga légui boucle du budget taxaw na wax ngeen ma légui tali yenen tali yëpp taxaw tous les projets sont à l'arrêt c'est normal c'est normal parce que depuis sept mois liggéeyuñu dañuy wax rek kenn nag du bañ a am résultat Moi actuellement man opposition bi nga xam ne bëgg ko ñu samp ko opposition bo xam ni dañuy tere wax ju bari opposition bo xam ne dañuy jublu wax gouvernement bi ne jublu ci liggéey opposition boobu mom ci la nek tok tok muy dox jeex na ci réew mi waaye wax muy dox nangu il faut que vous le refusiez s'il vous plaît il faut que vous bañ ko koo xamni que da nga yor responsabilité ci réew mi boo bo ci quelle que soit élection présidentielle muy législative municipale peut-être d'autres et d'autres bu sunu institution yi mu changé Bo ñëwé bo amé responsabilité da nga d'abord wax nit ñi la nga def nga wax nit la nga fa d'accord naa ko nga wax nit la nga def ça c'est important waaye ñëw rek nekk ci ku mel di opposé wu jël gouver opposé wu jël réew nekk ci gouvernement di opposé wu kon loolu dañ duñ ko nangu nañu commencé liggéey du travail au gouvernement Demandez des emplois au gouvernement tout. toute la Casamance a la capacité bu mener Sénégal wax ko Ziguinchor ñaata mako wara def wa ya na jël dossier rek recopier wax jeex parce que yéen a ko mom ko biñ koy def defaluñ ko suñu mi lañ ko li fi 1960 ñu def 70 ñëw 80